mbokk yi digg ngeen fii produit sexuel bu nee waaye ngóor a kàttan moo jël ndam li moo jaaxal ñëpp waaw ngóor a kàttan li tax mu jël ndam li mooy dañu ko defaree à base de dinjeer petit cola bisaab ba ci reenu senjeen waaw ngóor a kàttan dafay fàcc lu jëm ci wàllu ballonnement de ventre wàllu constipation maanaam seere wàllum faiblesse sexuelle maanaam da ngaa tëlee ngóor a kàttan nii moo ci baax ba noppi daf lay jox appétit sexuel maanaam saa yoo ko jëlee da ngay am kàttanu sëy awra ba noo ko bëggee noonu nga koy defee mbirum éjaculation précoce nag moo ci gaaw maanaam bu fekkee da ngaa gaaw a yëg sa bopp di gaaw wàcc ngóor a kàttan mi moo ci gaaw li ci gën a neex nag mooy amul benn effet secondaire maanaam mun nga ko jëfandikoo te du la gaañ benn yoon wàllum douleur wàllum jabet wàllum sinusite nag moom kenn demul mu des da koy digni ba mu set wecc lu jëm ci biir boo xamante ne dafay metti nag maanaam biir bu lay sonal boo ko jëlee daf koy nettoyer ba mu set wecc kon nag mu ngi noonu képp bëgg ci ngóor a kàttan xamante ne wàllum kàttan moo ci mënti Sénégal woote leen ci numéro téléphone bi 77 240 97 97 kon nag ngóor a kàttan mooy buuru produit kàttan yi salaamaaleykum yéen waa àdduna salaamaaleykum yéen waa Sénégal maa ngi jéggul nag c'est la première fois may doog a def vidéo am tiis am naqar am yëg-yëgu mettitu xol gis ay audio yoo xam ne dafa fuité loo xam ne c'est confidentiel di diggante yaay ak doom muy soxu seen suñu jigéen di yaay ma njaay jigéen ju baax jigéen ju am valeur jigéen joo xam ne boo ko fekkee mbuur bari na artistes yu bari yoo xam ne boo demee këram sali day ubbi néegam di jox ay teraanga di jox alalam nit ku baax am na loo mën naa ñaaw mën naa ñàkk ndax bokkul ci suñuy valeur Mandiaye Seck Wally Seck sa papa la sa mag la sa xalifa la mais xam na ne nag ku bëgg Wally nga Wally ku la bëgg la ndax da ngeen a dem ba di ngeen bokk charisme da ngeen a nuroo da ngeen a bëggante waale ñun suñu frère nga nit ku baax nga nit ku ëmb nga nit ku yaatu nga bàyyi faal nga wal sa rakk jéggal ko ngeen waxtaan te xam ni àdduna mu solo manjaay def naan defar na fu ne waale tabaski ni mu réyee nga bàyyi yaay bàyyi papa bàyyi jabar ànd ak caméra yi dem ni ku may seet sama mag sama xalifa loolu comme doyal da dootu la doy jéggaleel te yàlla tax ma njaay demal jéggul sa mag àdduna mu solo ñi ma gis ay sagar nit yoo xam ne ci internet bi di diaboliser di jël ay photo waali di jël ay photo soxu seen jël photo ma ndax lan ay profiteurs yu tekkiwul dara ndax alal àdduna waali wërsëg bi ko yàlla def sunu borom moo ko jox te jomb ci ku ne gars yi nañ la jëm leen liggéey yi jëm leen a am valeur jëm leen a xam seen